lu ñuy dajale la woon ci poosu kenn ku nekk parce que ndimbal la loo xamante ni ñun ñoo koy jagleel suñuy rakk suñuy jarbaat suñuy doom te tànneef gi comme ni ñu ko waxee lu tax jubluwaay bi di CEM bi mooy tey CEM bi ñëpp fi nekk ndax CEM bi c'est pour toute la commune de Lour Escale moo tax MTCL tamit di kuréel goo xamante ni bépp dëkk mi ngi ci te comme bi ñuy def appel à contribution bi fu ne dërëmu nit jógee na fa kon bu ñuy am cible dañ koy jëmalee fi nga xamante ni ñëpp teew nañu fa. ci biir loolu nag mën nañ ne liñ fi teewal tey nekk na lu ci ëpp mooy ay cahier la ak bic cahier yooyu tamit day baax ñu spécifier leen ay cahier de 100 pages la lim bi di 800 cahier de 100 pages donc euh, li paquet yi la 80 paquet de. Euh, de cent mooy cent cahiers paquet bu nekk 1600 muy un montant de cent vingt 128000 ay paquet de cent pages quantité bi di 160 moom tamit muy valeur u 256000 pour ak ay stylo muy big yi ñuy bindee ay big bleu la di cinq paquet paquet bu 8 paquet di moins paquet bu nekk 50 muy cent big donc pour un montant de mille lépp nekk cent mille waaye gis neen fi tamit ay rames de papier mu nekk contribution boo xamante ni doomu gox bee ko def taxaw suñu kanam tey di couvrir lii muy Amadou Makhtar Sarr kon tamit CM bi nañu xam ne ndimbal loolu fekk si waat li MTCL def ci tuuru Amadou Makhtar Sarr jox na ko dàppale ko CM bi ñu mën ci imprimer seeni exercice ak yu ni mel muy jël rame de papier. donc en loolu moo nekk li nga xamante ni moom moo nekk fii nii peut-être que ñu ngi may signaler gilet yi. ci beneen cadre la mais tamit bi Amadou Matar di ñëw gis na ne ak insécurité ki yëpp <laughs> c'est xibaaru Bambouk <laughs> waaw donc au nom de MTCL am na ay gilets yu ñu prévoir pour sécurité vraiment taximan yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi yore ay vélo te teew fi nag ah mu ne dina dinañ ko indi ci turu MTCL jébbal leen ko ngeen koy sol ndax guddi gi gis neen ne soo koy sol bu la benn waruwaay féetee ginaaw su taalee lumière am dina xam ne am na lu nekk ci ci kanamam loolu yëpp ay précaution donc ay mesures de sécurité la donc loolu moo amoon lu fi ma doon présenté ci ay bagages di leen remercier. maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp muy góor di jigéen mag ak ndaw euh, di am kontante ci bés tey bi euh, sama teew fi nag wax dëgg yàlla neex na ma trop maa ngi jiital ci nuyoo bi xale yi nga xam ne ñoom ñoo waral lii ak kilifa gi nga xam ne mooy yore place bi tax ñu def fi lii man nag wax dëgg yàlla euh, li nga xam ne euh, sedd na sama xol dinaa ko wax ñii ay xale lañ dugg ci école bi di jàng doon naa ko wax toujours amuñu ci on dara ku xam ci école wala ci njàng wala ci dara bu ñu demee ñoom bu dugg ci école bi ñu nekk ceeg ñoom di daanoo ko jog di mbaar di samp jën di def yëpp yaakaar ci ñoom ñu jog ëllëg pour li nga xam ne ñun moom lañuy ñuy def ñu jël ko ci suñu loxo def ko loolu dañ ci am kontaan parce que fonk nañu seenem jàng jàngi nañ am diplôme ñëw fas yéene taxaw ñun fu raw fi ñu taxawoon loolu dañ ci am mbégte te aussi li ma ci gën a euh, euh, tax sama yaakaar nekk ci ñoom ñiy jàngi ba ñëw yore seen i diplôme ñi yor seeni i salaire bi ñëwee egsi fekk fi ñiñ bokkaloon di football di dem di di dem di nëbbulante ba ñëwee dañoo xëcc ñëpp tollook ñoom ba buñ toogee doo xam ku am diplôme ak ku amul man loolu daf ma neex yar boobu ñu am moom lay sant seeni ndaw ñu jéem koo yokk ñoom ñii kii am diplôme ak ki amul diplôme bu ñu bokkee toog doo ko xam ba ñëwee it ñu dem beddi ñee def nii dañoo ñëw jël ñoo ñu tab seen bopp ñoo ko bokk di def kon nag loolu lañ doon ñaan ci ñoom loolu lañ bëggoon ci ñoom loolu nag comme ñëw ngeen xaw yoon woowu ñun dañ ciy bég te di leen sant di leen ñaanal ñu ngi leen di ñaanal ngeen jëm kanam te lii nii ngeen def nii seen warteef la waaye mënoon ngeen ko bañ a defee te kenn du leen ci wax dara kon su ngeen ñëwee def ko at mu jot ngeen di ko def di ngi ñaan at mu ne di gën a ngeen di ko gën a mën fi ngeen bëgg a egg yàlla na ngeen fa egg lii ngeen nga xam ne moo leen tax topp di leen dab te bëggut ngeen jëm kanam yàlla bu mu leen jot lépp lu ngeen xam ne sumb ngeen ko pour dëkk bi pour seen bopp looloo yàlla na ci yàlla def barkel man de yàgg naa ci école bi. di leen jàppale am ci yéen yaakaar yaakaar bi desul gannaaw benn yoon kon yàlla na jëm kanam yàlla na jëm kanam dëgg la ñun amuñu ay diplôme waaye xëy na am nañu ay ay ay disposition yoo xam ne ak ay ñaan yoo xam ne war nañ cee mën a jàppale ku ne kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm principal jërëjëf euh, li ñuy wax ne ay gàpp danay danay am lu mu waral dégg nga bi nga ñëwee ak léegi daje nga xale yi gën a man li ñu man ñi ngi ko doon def ci fu ne nag te lii dul lii rek ñi ngi ci sante bi ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci population bi ñi ngi ci ndimbal yi te niñ defalee école bi nii ñoom ñii mi ngi ñaan yàlla ñu man ko ba def ko ci mbéy def ko ci càmm def ko ci leneen te fas nañ ko yéene te léegi nag loolu mooy tax ba ëllëg ñun li ñu bëggoon mooy gox bi bu ñu ko yoree ba ngeen ñëw ñu jébbal leen ko mën a tëdd nelaw te yàlla na leen ko yàlla defal bi jaayi Muhammad sallallahu alayhi wa jërë jëf. maa ngi nuyu ñëpp di commencé nuyu bi di nuyu principal di nuyu aussi sama tonton ñu fi nekk ñëpp parce que man ñëpp tonton lay wax voilà en tant que aussi représentant euh, du maire euh, ak aussi yore éducation aussi peut-être la parole me revient et je vous remercie. voilà lu ñuy def juste mooy remercier aussi le mouvement MTCL remercier le mouvement MTCL parce que lii nii comme nu ko ins waxee euh, ñëw na au bon moment voilà. ñëw na au bon moment parent boo xam ne nii am nga ci rek c'est-à-dire c'est un plus te dañoo nekk ci zone boo xam ne nii euh, am-am bi demeewul noonu bu ñu toogee MTSL mënoon na jël lii def ko feneen mais bu mu xalaatee éducation à chaque fois chaque année mu koy def aussi dañ ci dañ koy gën a gërëm o nom du maire de Lour Escale ñu ngi lay ñu leen di gërëm franchement parlant di gërëm aussi le principal parce que tëjul école bi ñëw fi pour tëj école bi mënoon na ñëw il fait son boulot ne dëkkuma fi je fais mon man moom su may wax c'est comme ça amoon na fi jëfee ma bu lay gérante mais kii foo ko gis dalay woo école bi lii laa ci xalaat lan ngeen ci xalaat lan ngeen ciy def à chaque fois ñu ngi xool nan la ñuy jëmalee seen bi kanam ba ñu képp kuy jeune dangaa ñeme ñëw ci école bi n'importe quelle heure boo ko wooyee mu jël la n'importe quelle heure dalay woo pour la cause de de de l'école et on vous franchement euh, xale yi lii lii pour yéen la je pense comme ni ko El Malick waxoon bor la woon pour moom moom mi ngi essayé fay leen ba boo leen ci tollee yéen tamit ngeen fay bor bi merci aussi El Merci beaucoup à le mouvement euh, MTCL. On vous remercie. Merci. Euh, waa Lour maa ngi leen di ziare yéen ñëpp parce que du ma ne waa MTSL ñu bokk MTSL ak ñu bokkul MTSL ñu ngi fii euh, ci sant gi ak remerciement bi ñaari groupe laay sant lay remercier mooy ñi jugee béyleel coono bi ñu daj pour yegg si fii amaana buñ ko toppee sax sant gi du ko jar ak ñii di équipe pédagogique bi te ki nekk ci bopp bi mu di Euh, le principal liñ ci wax duma ci dellu si waat euh, dina baax rek ñu delluwaat ci ginnaaw lan moo waral lii tey lii amicale bu ñuy wax amicale des élèves étudiants de Lour fa la fa la fa la fa la mbir yi déparé def cours de vacances ba pare ñu ne lan il faut que étudiant bu nekk wala képp ku ko mën nga pare ne ñaari élèves élève boobu bu amee cahier bu jeexagul nga dagg feuille yi ci des may ko bu amee livre boo utiliser tul nga jox ko boo ko mënee dimbale ci fourniture ak lu mënti doon foofu la njël la lu ci nekk dañ koy delloo ca ñaka moomoon muy dox di dox di dox di dox ba yegg si fii ba MTCL di ci dugal loxoom euh, le charme de MTCL li ci neex moom mooy lan mooy da ngay gis mbir te doo xam fu mu jugee ak kan moo ko def bon gilet yi maa ngi door a gis ne MTCL def na gilet noonu lay fonctionner lu jot lu ne ki ko war a def mën ko def da koy def te du ci xool tur du ci xool lan moo ko ci doo sax comprendre et loolu mooy esprit bi loolu mooy philosophie bi pour lan pour juste servir li nga xam ne moom mooy localité bi bon lii aussi bari na bariwul du yëfi benn nit yëfi groupe la ku ci nekk tuuteem mu ngi ci biir pour mu mën a nekk biñ koy indi ki mën a déplacé wu fay taxi pour mu dem ci oto bi def na ko ki war a dem démarché ko ci quincaillerie bi def na ko ki ko war a réceptionné Koungheul mu ñëw fii def na ko ki ko war a réceptionné fii ci dëkk bi insi de suite ainsi de suite te yooyu yëpp dara mënu ci woon ñàkk ce qui fait ci nekk am nga ci cër am nga ci wàll duul ne Malick moo def duul ne El Hadj du keneen du keneen moo def ñëpp kuy yeewoo ci dëkk bi sa mbir dem na ci nga xam ko ak nga ñàkk koo xam noonu la am tey seel di doxe te loolu tamit moo waral lii xew fii tey tàmbali la processus buy dem la ñi ci tolloog tey dinañ dinañ def li ñu mën bu ñu fi jógee keneen da koy continuer di di remercier bu baax nag euh, équipe bu prince bi ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci école bi lii mon frère Abedi Fall wax mënoon nañ def rek li ma fi andi damay liggéey bu école tëjee pare naa ci élèves yi bu ñu jàngee baax na bu ñu jàngul ñoo xam mais heure bu problème amee ci école bi dinañ ñu woo woo ñu xam ku ci nekk li nga mën nga ñëw def ko ci. donc remerciement bi dafay jëm ci waa dëkk bi yëpp dafay jëm ci doomu dëkk bi yëpp ku ci nekk acteur nga ci wàllu njàng mi ak njàngale moo xam ci wàllu nasaraan moo xam ci wàllu école bi. li war conseil municipal da koy def lam warloo woon ak école élémentaire bi def na ko bon ñun aussi en tant que partenaire état dañuy ñëw def liñ ci mën def bi aussi dañuy xool conseil municipal bi fi mu def ba fi mu yem ñu xool lan lañ ci mën a toftal bu dee 100 ñu def bu dee 200 ñu def loolu mooy esprit bi nekkul en compétition wala en concurrence avec conseil municipal bi non non ay partenaire conseil municipal bi lañ bu maire bi defee ba mu yem fii nii ñu xool ca la mu def bu dee 90 yi def na ko mu war a des 2 ci sunu kéem kàttan MTSR mu ñëw mottali 2 yooyu et dans les domaines nekkuñu en compétition a kii que ce soit wujjeewuñoo kenn daxalante wuñ ak kenn fu waay nekk loo mën lu nekk war nga ko mën a def njàng mi aussi noonu lañ ci toll liñ ci tolloog la ñuy def daftal ka ca ñi nga xam ni ñoom tey ñoom la état chargé pour ñu def ko bu ñu demee ci daara yi aussi am na lu ci état war a def bu état defee ba pare moo xam conseil municipal moo ko defal wala beneen partenaire moo ko ko defal World Vision wala ku mënti doon fu mu yem ñu gis ne problème yi ba léegi jeexagul parce que mënta jeex ñu dajale sunu suut am benn bunt buñ ci fat bu ñu demee ci transport bi aussi noonu la tey ci wàllu taxi moto yooyu ci lañu moom la ñu tollool am na loo xam ne état moo ko warloog yéen def na ko defu ko intéressé wuñu mais li nga xam ne mën nañ ko ci participer pour gën a ñoŋal yëf yi dañ koy def te yàlla rek tax il faut que ñuy bañ di fàtte loolu te yàlla rek tax souvent damay wax ne lu politique rax lu ne mu compliqué lu politique dugg lu nekk dafay soof donc looy def lu ne lu ñuy act bu ñuy posé bu nekk nañ ci jiital sunu diggante ak sunu borom ku gëmul yàlla nag doo fay bor te ki fi jógee sànq dafa ne dañuy fay bor wax na dëgg dañ ñu lebaloon fii nu fi waay mel nu nekk ak noo taxawee nu ne dafa am ñu la doon buux di la puus ba nga mën a yegg foofu ñooña boo mënta def ci ñoom mën nga def ci seeni doom loolu moo waral lii tey moo tax cantante gërëmante dakatul jar parce que fay bor jarul remerciement jarul jaajëf c'est pas la peine wax ji bu ñu ko toppee dafay gudd te du am sens jotaay bii sax mënoon na ñàkk parce que mënoon nañ ko wàccee ci carton yi rek ñëw jox ko prince mu séddale ñi ko moom mais nag bon dina baax aussi xalaat pour koo xam ne mbir yi dese woon na leer ci sa bopp nga xam lan la de quoi il s'agit du politique du politique pour falu ak folli activité doomu aadama wala politique doomu aadama bu dee fal nit pour folli nit pour falu rek ci la yem xamal ne jarul amulul njëriñ société boobu ku fi mënti nekk ëllëg ak ku mënti falu on s'en fout ça ne nous intéresse li ñu intéressé moom mooy li ñu mën a participer suñu développement dëkk li ko war a jëmale kanam ñu def ko ñu falu ñu ñàkk falu dinañ ko def waa dëkk bi nangu waa dëkk bi bañ li ñu war a def pour dëkk bi développer dinañ ko def même bu ñu paree après ñu saaga ñu sax amul importance dañ yëg-yëg la dañ koy def on va le faire donc euh, maa ngi lu baax ci kàddu yi sant leen di leen gërëm euh, di masawu baax nag encore une fois ñi nga xam ne ñoo jugee beleel ci ndox mu bëri bi naaj bu tàng bi toogaay bi tout ça ay bâche ak yooyu yëpp mënoon nañ ko teg mais dañu ne amul importance parce que day nuru leneen. mënoo di xëy ci sa tool ba pare ne naaj wi du la laal sa pas possible bu dee bëgg nga jëriñu loolu da nga koy teg ngi sant ñi fi teew ñëpp di gërëm ñi fi teew ñëpp di ñaan yàlla lii yàlla nañu dem ba ñi toog ci ron garab gëre ëllëg ñëw def lu raw li nga xam ne moom moo fi ne te loolu yàlla mën na ko lu fi am lu nekk ci Pastef rek ci la jaar. ci pasteefu rek mooy pasteefu doomu aadama nag waxuma pasteef wala de <laughs> loolu andi wuñu fi tey bu nekkee ci yow nag dara du la të li gën a jafe mooy nga am xalaat am yéene am xalaat am yéene loolu boo ko amee la reste yëpp da ngay da ngay da ngay da ngay rek voilà ñu ngi leen di sant di leen di jaajëfal di jéggalu baax ci kàddu yi bu dee am na lu fi rax euh, du woon sunu jubluwaay. salaamaaleykum mbooloo mi euh, maa ngi nuyu ñëpp. di sant ñëpp di ko tàmbalee ci borom dëkk euh, teg ci parents d'élèves yi après mu ngi fii représenté tous les parents di nuyu tous les membres sympathisants du mouvement Manko Taxawu commune Lour di nuyu toute la communauté de Lour ñun CM bi ñu ngi sant yàlla biñ leen woowee ngeen di ñuy wuusi on fait souvent appel à vous et vous répondez à saa ñu amee soxla dinaa ci diisoog ñenn ci waa dëkk bi ne ah CM bi bu ñu mënoon am lii wala bu ñu mënoon def lii mënoon def lii day dugg ci nopp bu am dégg-dégg te di ngeen ci góorlu def ci li ngeen mën lii bi ma ñëwee fii mii mooy sama troisième année ma koy fekkee donc c'est un événement boo xam ne yéen a ngi koy féddali chaque année ñun dañu naan alhamdulilah fii à Lour les élèves non pas un problème de démarrage des enseignements pour pourquoi bu école tijjee enseignants yëpp dañu teew buñ ne élèves yi war nañ ñëw dañuy fekk enseignants yi pare nañ buñ ne démarrage des enseignements day fekk aussi am na ñu ñëw indi ay fourniture pour jàppale xale donc ce qui fait que fii les cours démarrent très rapidement contrairement à d'autres localités où il faut attendre parce que contexte bi nekk nii ñëpp xam nañ am na ay tous les parents surtout dans les zones rurales il faut attendre que ñu commencé dex yi mën a jaay mën a jënd ay fourniture mën a fay institut à Lour vraiment problème boobu daanaka mouvement Tanko euh, Taxawu Manko Lour euh, ñu ñu ci suturaal diñ ci jàppale ñu ngi naan alhamdulilah amuñu lu ñu mën a def lu dul gërëm leen gërëm leen ba fu mu mënul amuñu amoo fu mu yem di leen ñaanal yàlla nag yàlla mi am fay yàlla na leen fay yàlla na leen yàlla defal kàttan ak man-man ak am-an ngeen tal ko di moo continuer di def lii ba seen i doom di ko continuer ngeen koy def aussi dans d' autres secteurs seen bi nag mu ngi nii la porte elle est grandement ouverte à tout la communauté de Lour lu ngeen soxla xam bu ngeen ñëwee fii di ngeen fi fekk ñoo xam ne dinañ leen renseigner li ngeen fi bëgg def aussi bu ngeen ñëwee ah principal bëgg nañ def lii ñu waxtaan ci xool nan lañ ko defee mais ñun la porte est grandement ouverte et on lance appel bi dañ ko féddali ñu ngi woo ñëpp CEM bi du CEM principal du CEM professeur yi CEM luur la ñun état moo ñu fi indi état la ñu liggéey dañu def suñu liggéey ni mu waree bu ñu amee nag kuñ ci mën a jàppale dañ ciy sant yàlla l'état ne peut pas tout mais yéen am ngeen ay idée am ngeen ay xalaat am ngeen ay moyens lu ngeen ci mën a jàpp même bu dee benn boîte créé ngeen di indi jox ko CM bi ñun toujours dañ naan merci waaw loolu moom dañ leen ciy woo comme ni ñu daan def ñu leen ciy woo yéen ñëpp ngeen ñëw jàpp ci waaw nga jàpp ci jàppale association parents d'élèves yi mu gën a am doole gën a mën a taxaw aussi élèves yi yi nag lii sas la chaque année on vous donne des fournitures yéen amu xaalis bu ngeen mën a fay ñii lan ngeen di mun a def pour fay leen mooy avoir de boo résultats on aimerait qu'à la fin de l'année scolaire élèves yëpp ñu ne ñii ñëpp passé nañ amul benn élève redoublé ñi def troisième ñu ne ñii ñëpp am nañ BFM loolu rek ngeen mën a def pour fay ñii mais amu leen xaalis bu ngeen leen mën a fay donc on attend de vous de bons résultats de bons résultats vraiment euh, Malick yow ak ñi nga àndal ñëpp ak waa dëkk bi yëpp au non de l'IEF au nom de toute l'équipe pédagogique nous vous disons merci nous disons merci ngeen xam ne aussi ci gannaaw am na ñi fi nekk man ngeen gis mais ñiy liggéey ñu ngi fii ci gannaaw c'est l'équipe pédagogique c'est une équipe pédagogique disposée prête à tout faire pour la réussite des élèves de Lour donc yéen xam ngeen ci dara samedi dimanche matin soir saa yoo leen waaye ñu ngi fii il son prêts à dispenser de cours te kenn du leen ci laaj dërëm dañ koy def parce que te yàlla tax donc bëgg naa ngeen ñaanal leen ñu gën a am kàttan gën a am kii euh, pas ñu mën a continuer li nekk yàlla dafa leen sutura dafa leen jàmm fi ñu bëgg a àgg aussi ñu mën faa àgg vraiment maa ngi gërëm di sant ñëpp APE maa ngi sant ñëpp di leen ñaanal yàlla yàlla defal sutura bon sànq yéen a ngi wax am na ñoo xam ne am na problème yi am ci suuf ñu ngi ciy discuter ak yéen je peux parler des toilettes instant bëgg nañ defar ay toilettes pour les professeurs maa ngi ciy waxtaan ak congaan sori nañ ci donc pour xamal ne école bi yéen a ngi ciy def am na lu feeñ am na lu feeñul lii mënoon naa ko bañ a wax mais moom xam na donc il faut mu wax maa ngi ci discuter ak Thiongaan avancé nañ ci amaana peut-être d'ici deux trois mois dinañ ko finaliser donc l'école est là école daal école u ñëpp la ku ci mën a def daram bismillah mais école ñëpp la waaw loolu daal ñu lay Malick loolu laa amoon li mu wax ci turu professeur ci turu IEF moom mi nekkal fi njàng mi bu amoon possibilité tey dina ko feye man xam naa ko moom yii vraiment daf ko intéressé bëgg na ko bëgg na ko jàppale école bu amoon possibilité teew fi dina teew waaye comme inspecteur Sarr jaar na fi dafa mel ni moom teew na fi donc maa ngi koy maa ngi remercier ñëpp ci turam ak ci turam tous les collègues qui sont la donc du moins comme de l'élémentaire comme du préscolaire toute la communauté éducative vous remercie ñu ngi leen di wax merci jaajëf yaa na la yàlla fay yaa na yàlla fay et ñu ngi fii également pour euh, renforcer la colla la collaboration on est là donc euh, souvent on dit bismillah euh, xanaa di leen sant leen gërëm rek période bi moom parent bu ñu indil fourniture élève bu ñu indil fourniture vraiment xaw nañu wàccee sa waajur coono tuuti parce que kay de fashion et c'est venu au bon moment au moment où les cours démarrent parce que loolu aussi da cee am solo yéex a joxe fourniture kenn du ne baaxul waaye gënul avant ñuy démarrer bu xale yi amee fourniture c'est déjà bien même maire yi sax dañ leen wax souvent avant lu début euh, de la reprise des cours ci la ñuy joxe forniture bi lii nag moom lu rafet la vraiment bëggoon nañu euh, muy lu sax ñiy def lii nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal aussi vraiment ngeen euh, bu nee ngeen mën lu ko double wala lu ko ëpp chaque année ngeen di perpétuer la tradition lii dina tax xale yi gën a góor góorlu parce que li ngeen di def nii fay bor la dañ leen a lebaloon di leen jëndal ay cahier léegi itam bon cahier yi vraiment ñëw na di euh, sant nag monsieur le maire di sant également les étudiants di sant euh, ñëpp ñoo xam ne teew nañ fi. région la boo xam ne mu ngi fii di jàppale commune bi te nag spécialement école la ñoo jàppale en remettant des cahiers de du matériel scolaire donc euh, rafet na. ñu ngi leen di ñaan rek muy loo xamante ni bu mu yem fii parce que au delà des fournitures am na yeneen jafe-jafe yu école bi am war ngeen ci mën a jàpp di ñëw di nemmeeku école bi di seet principal lan la war a lan la soxla lan ngeen ci mën on vous demande pas de faire tout mais y a des yoo xam ne vraiment mën ngeen ko attan ngeen ko te bu ngeen ko defee aussi day tax mu gën a baax parce que fonk sa gox dafa baax ça c'est un acte civique day wane ne yéen fi seen gox toll parce que jël sa alal jël sa ñaq jël sa doole def ko ci sa askan yaakaar naa ne geste bu gën a boobu amul eh, ñu ngi leen di ñaanal nag ñaq bi ngeen ko def fii yàlla na ko yàlla barkeel xale yi aussi fourniture yi ngeen xam ni dafa am ñu leen ko jox yéen itam ngeen pareel góorgóorlu ba tekki ba seeni doom wala seeni sët seeni jarbaat ngeen toog ba yéen itam ngeen remplacer eh, maa ngi ko taxaw Lour Escale donc ñii peut-être bu ñu paree dañuy dem yéen a war a ñëw bu ngeen ñëw aussi ngeen taxaw taxawaay bu gën a fës bii ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen jàmm yàlla barkeel seen jàng ngeen dem ba doon ay mag yu am ñam comme on di de gens responsables yoo xam ne ni vraiment dañuy buggu réew mi wala gox bi gannaaw yéen a koy yore ëllëg ngeen nekk de bon citoyens waaye nag li ma leen di ñaax mooy ngeen gën a yoru gën a fonk seen jàng topp seeni jàngalekat ak seeni wayjur bu ngeen ko defee du ngeen ko rëcc voilà merci Makhtar